asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki téléspectateurs yi ñu indi leen ziar bi ne daara Hizbut Tarqiyyah moo ko def Cheikh Sidi Mokhtar général des mu doonoon nag bis bu ràññeeku doonoon fukki fan ak ñeent ci weeru safar atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-benn ci ati gàddaay bi dëppoo 7 décembre di bis boo xam ne nag jege na lool bis bi di fukki fan ak juróom-ñett ci safar moo tax lépp ñu tàbbal ko ci biir waajtaayu màggal bi nga xam ne moom rek mooy benn bis bi nga xam ne moom la waajal at ba seen télévision Al Mouridiyyah TV ni nga xamante ni xam na ni xew-xew bi xew-xew bu am solo la ndax mboolem daara is bu tarix ñoo fiy daje ci biir réew mi ak ci bitim réew jël nañu matuwaay yépp yi nga xam ne moo la war a am ngir mën leen a toppal convoi bi toppal leen ko bi ñu jógee fii ci daara bu Tarqiyyah ak mboolem fu ñu jaar ba ni ñu àggee ci kër Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des Mourides tabbi gi mu tabbi ci wattaay yu màggal gi tax na mu doon bisub dundal di bisub animation bu am solo looloo waral camion sonorisation boobu ñu ko di ko waajal ngir jublu ci rek bu ñu tàmbalee fii ba ba ñuy yëg kër sëriñ bi fépp foo xamante ni romb nañ fa ñu yëg ne ay dongo yu am mbégte di siyaare seen sëriñ di siyaare seen yaakaaru àddina ak àllaaxira waaye itam nag di sant suñu boroom mi nga xam ne may nañu ñu fekkewaat bis bii ba dikk ni nga xam ne ni lañ ko doon defee ziyaar tam ku ko tudd tudd addiye yi nga xamante ni bokk na ci li ab murid di dëggale digganteem ak Sëriñ Tuubaa moo wax ne Tuubaa li habdin muridin saadiqin lahumu bu ñu wonee ak yitte yoo xam ne wone nañ ko jóge ci ay gox yu bari ngir cofeel goo xam ne am nañ ko ay dëkk yu sori ngir dikk siyaare si ko add yi itam bokk na ci li nga xam ne mooy jëbbal yéene yi am nañ ko ak pastéefu liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def jëmale ko ci moom nii rek la ko Sëriñ Tuubaa digle woon wax ne boo jógee jëm ci sab sëriñ di sa yaakaar yi àddina ak àllaaxira lépp loo gën li am ko ci lu baax ak fu mu mën a ne war nga ko génne jëbbal ko ko xam ne jox gi nga koy jox sa lépp firnde la ci jaayante gi nga xamante ni moom nga jaayante ak moom jox gi nga koy jox sa lépp firnde la ci wane ne cofeel gi nga am ci moom lu wér la looloo waral nag lépp loo xam ne xalaat nañ ko rek ni mën naa tàbbi ci àddiya yi daara Hizbut Tarqiyyah ni ñu ko baaxoo defee fu ñu mën a nekk ak gox bu ne ña fa nekk la fa baax lépp dañ koy indi ñu dajale ko yu yër ko ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba ngir mu doon seere ci yeesal suñu jaayante ak nekk ci gannaawam te xam ne Sëriñ Tuubaa moomoom suñu bakkan moom suñu alal ñu war koo firndeel te moom moo ko fi nekkal ñu jóge ko seere loo góor ñi ak ci jigéen ñi ci gone yi ak ci mag ñi ñiy jóge ci ay gox yu bari ak ay daara yu wuute waaye daje fi nag mu doon mbégte ci ñëpp ñu ànd ko itam nag ak ñi nga xam ne ay bokki taalibe lañu di safoo liggéeyu daara ji ba lu ñu nekk ñu nekk ceeg ñun bokk yi am di jàmm yi am ci ñoo xamante ni dëkk ak dëkk la jóge ngir fas yéene ànd ak daara dem siyaare yi Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke siyaar ñëpp di ndokkeel ñëpp euh, bis la boo xamante ne rek pas-pasu euh, jullit ñu jëkk ñi moom la ñuy fas yéene rek di ko dundalaat ndax la amoon ak la ñu bëggoon ñun moom la ñu bëgg mooy euh, li taxoon ñu wàccee ñu ci kaw suuf jaamu yàlla suñu borom tey wabtaxoo ilayil wasilata bokk ci sàtt yi ñu am kilifa goo xamante ne dañ koy fonk jox ko ak joo xamante ne mooy li sëñ Tuubaa wax ne maa xurmati cheikhil murabbil kaamili illaa ka xurmati ilaahil faahili fonk sëb di ko jox addiye Euh, ñëw mu xool la bëti cofeel yoo xamante ne dina yeesalaat ci yow jikko yu rafet yëpp dina yeesalaat ci yow mm, ak li ñuy wax naan euh, xabulin xasanin yàlla suñu borom nangu say mbir loolu rek la ñuy sàkku fas yéene ànd ak suñu jëwriñ doon benn jigéen ñi euh, beru góor ñi beru xale yi ñu aar leen sàmm leen ñu dem ci sëñ bi leen am jébal ko ko boole ko xeeb ko ak toroxlu ak fa fas yéene jaajowaat jëmaat ci moom jërëjëf ndax tawfeex gu toll ni ko sëñ Tuubaa jagleel war nga gën a santaat bu baax di sant suñu jëwriñ muy sëñ Aatu ndax sag bi yëpp mën nañ ko àndi ko sago waaye liggéey bi yëpp moo ko yenn loolu moom ñun ñëpp xam nañ ko kon nag dañuy ñaan seexul xadim mi dara tawul mu guddal ko fan ñu digal ko ci biir ziar bi ci defal ñu ko ñun ñëpp doon na doole ay xéwal ba nu gën a mën liggéeyal sëñ Tuubaa waaye daal li wér te wóor daal ci tënk daal mooy sant sëñ kon nag alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Serigne Touba noo ngi leen di ñaanal bu baax sun borom mi nga xam ne ku mu féete fenn dara du la bët dara du la ñaat yàlla na leen féete fépp te féetunu fa. di ñaanal it sëñ ma ti lay mu yàgg fi lool te wér te sunu borom tabaaraka taala li mu noonu lépp mu yeggale ko jàmm sa am di ñaanal di sëñ aatu ak mboolem mi mu àndal yëpp lépp lu ñu liggéey naa la liggéey sëñ Touba yàlla na ko sunu borom yeggale yéen ñi nga xayit yéen ànd ak moom di saytu liggéey bi yàlla na leen yàlla doole ay martaba ci Serigne Touba gërëm leen ñoo leen di sant bu baax ndax màggal gi bisub cant ndax euh, képp koo xam ne da nga seer ji si euh, si di maxtaar yaa ngi seera di Sëñ tubaa kon ñoo ngi gën a santaat Sëñ tubaa bu baax a baax a baax te ñum ñu boole ci mboolu mu mel nii ñaan Sëñ tubaa defal ñu tawfeex ak tayseer defal ko mboolem jullit yëpp yal na lépp képp koo xam ne am nga ajo yal na ko Sëñ Tuubaa faj tey ci barke borom Tuubaa Xaadimu Rasulullah kon nii ngeen ko gisee lii ci oto yi rek firnde la ci wone ne ñëpp wuy si nañu ci woote daara Hizbut Tarqiyyah bi looloo waral nag comité d'organisation bi nga xam ne direction générale teg na leen ñu war a saytu liggéey boobu bi ñu xëyee rek la ñu jublu ci mbooleem loo xam ne mooy jombal nit ñi dem bi muy woto yi fu ñu mën a jógee ba képp koo xam ne am nga yéene ànd ak daara Hizbut Tarqiyyah liggéeyu ziar bi soo ñëwee ñu utal la waruwaay boo xam ne dañ ci mën a dugg loolu nag di woto yu takku ndax gis ngeen nii convoi bi fi ñu toll nii génn nañu daara Hizbut Tarqiyyah sori nañ ko lu takku waaye teewul oto yi jeex loolu nag di laaj organisation boo xam ne organisation bu am solo la ngir lépp mën a yéwén ba ñu àgg jàmm kër sëriñ bi am waaw ak cant la ñu yëg ndax euh, bu fekkee ci cosaan dañu ne sëñ bi dañ ko daan fekki fu ne fu mel ni gànnaar fu mel ni Thièyeen fu mel ni Jurbel ndongo yaa ngi ko fa doon fekk te la taxoon ñu ko doon fekki foofu lu dul lu dara lu dul ak cofeel gu ñu am ci moom tey tamit euh, xam ne sëñ bi dégg nañ ci taarix ne képp ku ko siyaare tàggoon nag bàkkaaram àddina ak àllaaxira loolu day tax euh, ñun ñu jóge Bambey mobilisé wu ñëw fii ci tuubaa dem siyaare ki ko fi nekkal muy Cheikh Sidy waa ci organisation mën nañ ne depuis bi ñu génnee màggal gi nga xam ne moom la ñu weesu ci la ñu dëgmal waajal li nga xam ne moom mooy màggal gi ñu dëgmal ci lañ ci euh, ci biir diggante bi ci la siyaar nekk moo tax euh, mën naa ne mën ne wàcc mën nañ ne waajtaayu at la woo xam ne def nañ ko mobiliser nañ espace yëpp lu mel ni espace culturel gone yi espace culturel euh, mag ñi espace culturel soxna yi ñoom ñëpp la ñu mobiliser ànd ak ñoom ànd ak ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy suñu am di jàmm ànd ak ñi nga xam ñoom ñooy suñuy dëkkandoo nga xam ne dañoo safoo li ñuy def ñu ñëw jàkkaarloog ki nga xam ne mooy yaakaaru àddina ak àllaaxira di Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké ndax seexul xaddim mi nga xam ne moom la yaakaar wax na ci xasidaam gu siiw ga hamdi wa sukri li man kulli bihi saara lahoo ridan duuna suxtin hinna sar saara lahoo wa ridwaanin bila sëxatin mus qaadiri min bani daymaan ansaara lillahi kulli la abaari makrumatin min hartahal naa wa fiha jamma man saara inna lazina ila sar saara xasadu ziyaarati faaruxu daarin aw saara kon moo séeréel boppam ci xasida boobu ne barab boobee mu nekkoon mbooloo mu takku tikk nañ fa doon ko siyaare te sàkku barke ak sàkku yiw rek tax leen a jóg mu warlu leen nag suñu borom tàggale na leen ak bàkkaaru àddina ak alaaxira yëpp muy loo xam ni itam xamle na ni boobee ba léegi fépp fu mu mësa a ne ku mës jóg ngir moom yàgg ña ko fekkoon sarsaara yéen a bokk benn àtt kon mag ñi dañ daan jiital seenub jur di jiital seeni addiye di jaar ci ay barab yu jafe yu tumuranke ngir fekk Seexul Xadim fa mu nekk tey nag ak jàppandeem ak yërmandeem ak barkeelub liggéeyam tax na coono yooyu yëpp ñun fekkuñu ci te lañu amoon incha allah suñu borom danañu ko defal muy wa kullu man xadamani aw zaara fa najjihi wax fii loo aw zaara kon ku jóg siyaare ko moom Seexul Xadim suñu borom dana la musal tàggale ak bàkkaar àddina لا téléspectateur Almouridiyyah dépassé nañu rond-point Corniche Guédé ñu ngi nii di ci tali bi nga xam ne moom moo jëm ci jumaa jumaay euh, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu nar a yegg fi nga xam ne tey jii fa la xalifa général kulli murid nekk muy Serigne Sidi Mokhtar Mbacke ñu ngi ko gisee nii cortège baa ngi nii ku nekk si kanam mooy jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah ànd ak euh, mbooloo mu takku jëgleel ko ki nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba atum 2014 bi nag xam ngeen ku nekk ci xilaafa bi moom mooy Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké loolu tax na kon ban jamono jii ñuy àddu di wax euh, convoi bi moo ngi jëm ca guy mbind mun nañ ne si suba si ginnaaw bi nga xamee ne euh, ay juróom-ñaari waxtu jot na ci suba gis nañ ne oto yu takku yi nga xam ne ñëw nañ ci buntu daara Hizbut Tarqiyyah ngir jiite convoi bi nga xam ne moom mooy dem John Quimby. dugguleet ci Hizbut Tarqiyyah ku ne xam na ni ziar yàgg nañ koo def jëmee ko jamonoy sëñ Blaat sëñ Saliou sëñ Abdou ba tey jii jaar sëñ Baara ba ñëw sëñ Sidi Maxtaar organisation bi ku ne xam na ni daara ji organisation ak méthode lu yàgg ci ñoom la nii ñu ko tëralee noonu lañ ko daan defee loolu it du leneen lu dul rek eh, gis-gis ak yëg-yëg ak expérience bi nga xamante ni ki jiite mboolem si at am na ko kon loo xam ne da ko doon def di ko defaat boo koy defaat war naa mën a tegu ci yoon. mbokk yi téléspectateurs yu Almouridiyyah TV euh, gis ngeen ne ñu ngi fii ci euh, ziar bi nga xam ne moom la Hizbut Tarqiyyah di am ci Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des Mourides muy liggéey boo xam ne bu am solo lay doon di liggéey boo xam ne itam daf ñuy won rek Pastef bi nga xamante ni ay dongo yu bëgg Serigne Touba wóolu ko yaakaar ko ñoo ànd di ko def loolu nag di loo xamante ni tey bokk na ci sart yi nga xamante ni ab murit ci lay dëggalee di ci liggéeyal Serigne Touba mi nga xam ne fàttali na ñaari bayt yu am solo muy zurman tuhibbu wa in sattat bi ka daaru wa haala min duunihi sahlun wa awhaaru laa yamnahannaka buhdun min ziyaaratihi inna al muhibba liman yahwaahu zawaaru xam ngeen ne lu jëm ci wàllum sécurité gendarmerie moom moo jiite li nga xam ne moom mooy convoi bi ngir mun a bale li nga xam ne moom mooy circulation bi yombal li nga xam ne moom mooy dem digg bi membre yi tamit tooguñu rekk ci oto yi ñëm tamit ñoo ngi jàppale li nga xam ne sax moom mooy gendarmerie facilité li nga xam ne moom mooy circulation bi ba wàllum dem digg bi mun a bañ a sooxe. ñoo ngi jàkkaarloo sax di seen li nga xam ne moom mooy jumaa ju tedd gi kon du yàggati. ñu yegg si ji li nga xam ne moom mooy guy mbind guy mbind mi nga xam ne euh, foofu kon le xalif général des mourides di Serigne si di Mokhtar Mbacké di xaar lii di daara Hizbut Tarqiyyah mi nga xam ne kon tey day ñëwal li nga xam ne moom mooy amal ab ziyaaram euh, kon ñu topp rek li nga xam ne moom mooy convoi bi balaa ñu yegg ca guy mbind jërëjëf euh, Serigne Mamadou Bokoum noonu nga ko waxee rek noonu la convoi bi jàllee waaye nag mu am lu ràññeeku loo xamante ne am na ci muy camion boo xamante ne sonorisation la gis ngeen bi ñu koy waajal ci daara ji mu doon loo xam ne fépp fu mu jaar njàngum xasida mu dégtu lay teg loolu nag di génnee bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi ñuy jaar fépp kenn ku ne di wane cofeelam ak mbégteem ci lii nga xam ne ñu ngi koy def muy liggéeyal Serigne Touba wéttali yoon wi lool di fàttaliwaale nag pas-pas bi nga xam ne moo tax dongo yi jóg ngir yeesal seen jaayante ci Seexul Xaddim firndeel seen cofeel ak seen mbégte te muy loo xam ni sax mbooleem ñi ànd ci convoi bi muy gan ñi di bokk yi di xarit yi di am di jàmm yi loolu rek la ñu firndeel. ak mbégte ndax wax dëgg neex yàlla xam naa ne Hizbut Tarqiyyah liggéey nañ ci yoonu sëñ Touba loo xam ne ni ku ko roy ak ku topp ci ñoom wax dëgg na yàlla doo réer ñu ngi ciy sant yàlla lu baax maa ngi koy doog a fekkee nag maa ngi doog a fekkee ziyaara bi ñuy gërëm nag. Antoine mi nga xam ne mooy responsable moral bi di ko sant di leen ñaanal yàlla yéen tamit yéen ñu topp ci moom yàlla na yàlla doon xéewal yeeg teraanga yi jërë ngeen jëf kon la délégation yi def gis ngeen nag fi mu ni ñu ci jumaa ju mag ji rond bi nga xamante ni moo féete penku jëm guy mbind lii rek la Serigne Touba santaane woon wax ne def ko ni saaba yi defoon yonent bi de mooy li jafe waaye li ko wóor mooy ku ko def ni saaba yi defoon yonent bi mu defal la lu yonent bi defaloon saaba yi Serigne Abdoul Ahad itam xalifa général des Mourides yàlla na ko suñu borom fayal fàttali nañu ne Serigne Touba day digganteem ak yorante bi ay at yu yàgg la kenn mënu koo lim ndax ëpp na junneeg nangam waaye teg na ngàngam ak pas-pasam ak pastéefam ba nga xam ni ñi àndoon ak yorante bi sallallahu alayhi wa sallam gañewuñ ko ci moom te ñu suñu digg ak moom di bërki démb rek kon nag ñi ànd ak moom waruñ ñoo gañe ci moom benn yoon pas-pas yooyu mag ñi amoon ba fu Serigne Touba mës nekk ñu fekk ko fa lu jafe-jafe yi mës ne ñu xuus ko jàll ngir firndeel seenu jaayante ak seenu yaakaar ko loolu rek tey jii la daara Hizbut Tarqiyyah di royaat di ko seereel nag ki nga xam ne moo ko fi nekkal tey di Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér gis ngeen noonu kon convoi bi nga xam ne oto jëwriñu daara yi responsable moral di Serigne Atou Diagne moo jiite liggéey boobu yëpp taxawu ko ànd ko ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne dañoo nekk ci daara Hizbut Tarqiyyah fu ñu fi mën a ne ci biir réew mi ak ci bitim réew membre yëpp itam. dikk ci ñu ànd taalibe ni seen cofeel ci Serigne Touba firndeel nañ ko ci lii ndax bi ñu agsee fépp fu ñu jaar mbooloo mi dikk na fekk suñu ba fi nga xamante ni mooy guy mbind di kër si Sidi Mokhtar Mbacke xalif général des ngeen gis ne convoi bi agsi na foofu nag mbooloo mi wàcc tàmbali tàbbi ci biir kër Hizbut-Tarqiyyah di agsi ak euh, délégation bi nga xamante ni ñoom la àndal ci wàllu liggéey bi ñu fas yéene nag euh, agsi jiitu mbooloo mi teeru leen bi ñu agsi itam fekk nañu lépp loo xam ne matuwaay la bu ñu war a jël ngir mbaar yi fu nit ñi mën a kerloo dalal leen fekk na itam lépp tàbbi ci biir liggéeyu màggal yi nga xam ni bi weeru safar bi teroo rek fekk na lépp àgg kon nii lañu fekkee kër gi mu agsi wane mbégteem ci mboolem ñi nga xamante ni teew nañu ngir bokk ak ñun bis bii jëm ci ziyaare Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général lii itam bi lenn ci addi yi ndax Serigne Touba moo waxoon ne sëb Serigne wala tazal ilayhi za ihdaayi lahu bi ma sa taxta min hataayi walaw xalilan limtisaali maa warat min annaha tazidu hubba man yu wadd kon cofel gi nga xam ne addiye ji ñuy jox Sëriñ Tuubaa danañu ko yokk cofel gi nga xam ne moom rek moo ñuy jariñ suñu diggante sëriñ bi yi itam di firnde ci yi nga xamante ni des na ci dëggalee suñu murit ak suñu jaayante suñu diggante ak Sëriñ Tuubaa moo waral bagage yi kon di seere rek ci li nga xamante ni dikk nañu tey di ko yeesal ci Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke muy suñu jaayante ak topp ci ginnaawam faw moom mi nga xam ni tey ciy ci cofeel bi nga xamante ni dongo yi ëmb nañ ko mu jëm ci Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne képp koo xam ne am nga tawféex yi suñu borom boole la ak moom nga di ko liggéeyal wala nga di ko jox addiye wala nga sopp ko suñu borom defal na la ci teraanga loo xam ne mënatoo koo fay. ndax nii rek tey ñu gis kër Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke mel day misaal na kër Serigne tubaa daan mel ak fu mu mën a ne. mag ñi it wax ne gis nañu ñoo xam ne barab yu sori lañ daan jóge te gis jëmmam ji rek ak jox ko seen addiye ak seere ko seen cofeel moo leen taxoon a jóg loolu nag tey mooy taxawaay ak teewaay ak jataayu Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke mii yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér jaayante gi nga xam ne nag waxoon nañ ko ak moom ñu di ko firndeel saa su jaayante dellu yeesal sa jaayante sa diggante sa sëriñ ñu ñëw nag di ko santale yàlla ci bis yi nga xam ne eh, ci la sëriñ bi amee li tax ñun ñëpp ñu mën a ñëw jaayanteeg moom eh, ngir am muccuk àdduna ak muccuk àllaaxira mu jaral na lu ne ba ci sunuy bakkan te ginnaaw laajatuñu deret ji alal ji la laaj ak bakkan yi ah kon ñun day eh, daa war a yomb ci ñun bis bu yàlla sàkk lañ ko war a def waaye lii moom dafa tolloog dundal lañ ci jublu rek ak euh, jàppale ko ci bernde yi ak xamal ko ne ko euh, bi ñu ko joxee sunu bopp it sunu dara manqué wu jooy jooyu mu dara jërëjëf kuy sant ñoom itam ñu ngi fi am ba daara gis ne envoyé na délégation boo xam ne teewe si na ndaje mi ndax liggéey at mi yëpp ñoo koy bokk lii day bis bu ñu jàpp ngir ñëw nuyu si sëñ bi siyaar si ko yeesal nag sunu njëbal mooy mooy mooy mooy dëgg dëgg li tax ñu ñëw yàlla bu baax comme ni nga ko waxee bi ñu fekkee ziyaara Hizbut waaye li ma waxoon rek moo ci ne képp kuy inspiré wu ci li nga xam ne moom la Hizbut Tarqiyyah di def doo juum te di nga di nga réew di nga jëme réew mi kanam ndax lii ñu fi ñu teg seen tànk daal foofu la te ñëpp xam nañ ne ñu ngi liggéey kon ku teg seen tànk ku teg tànk fi Hizbut Tarqiyyah teg tànk kon réew mi dina dem kanam ndax ñoom ñu ngi béy seen waar. waaw moom kay tey moom bésu sant la ñoo ngi sant baax lépp lu ñu yéene liggéey sëñ Touba mu def ko ni mu ko bëgg ñoo ngi koy ndokkeel itam ci song yim song liggéey sëñ tubaa bi tey ñaan sëñ Touba gën ko cee defal ndam bu baax a baax ndax euh, euh, moom euh, dimbali na ahlu murit gépp dimbali na ahlu lislaam bépp itam ci xam nañu liggéey la yàlla ak yonent ak sëñ Touba kon ñoo ngi sant bu baax a baax jërëjëf Mourid Sarr xam ni yoonu sëñ Touba di sàkku di ko xam te ma gis ne yoon yu gën a gàtt koo ko bëgg bàyyi boo nga ànd ak Hizbut Tarqiyyah sant rek sant sëñ Tuubaa rek ba keroog lu ñu ci fekk nag muy muy loolu nam ci sëñ Tuubaa rek te dara du leen téye nag sëñ Abdou Lahad da doon wax ni ku ànd ak ñoom ku ne boo yeexee ñun la waaxu si foofee rek lan teg suñu tànk nuy tam gis ngeen ko ni ngeen uh, gisee góor ñi noonu it la jigéen ñi takkoo taxaw taxawaay boo xam ne lépp pësteef rek lay firndeel te képp koo ci gis ci ñoom fii ci daara yi Touba ñii bàyyi ko Ndakaaru ñii bàyyi ci daara yi nga xam ni moo gën a sori ci biir Sénégal ba ci ñi nga xamante ni am nañu kàttanu mën a ñëw jóge ci bitim réew teewe nañu bis bi kenn ku ci nekkit li muy yëg rek mën naa waxaal moroomam mooy pas-pas ak ñaan suñu boroom ci barkeb Seexul Xaddim mu saxal ñu ci yitte ji saa su nekk nga xam ni moom rek moo ñu mën a may ngërëmal Sëriñ Touba. kon day mel ni ziar bi ñu ngi ko dundee mbég ak mbégte day mel ni daal am na lu ñu yëgaat lu bari suñu digganteeg sëriñ bi barke sëriñ Tuubaa di ñaan lii mu sax taw daat taw jeex ci barkeb Seexu Xadim di ñaan isbitarxee lépp li ñuy song ci ziar bi tey luñ fiy ñaan yàlla na ko sëriñ bi defal ci bi sëriñ Tuubaa mi ñu yaakaar wasalaam barke borom Tuubaa maa ngi jël ci yonante bi di sant sëriñ Tuubaa daara ji nag 93 ba léegi may ànd ak ñoom waaye lii rek laa ci ñoom sant jaamu yàlla bernde toppatoo gan teral gan sama waa kër fi lañ yaroo xanaa sant rek ndax xol bu sedd du mënta wees sant sant rek xanaa kontaan rek kontaan xol bu sedd guy sëñ tubaa defal nañu loo xam ne si lu ñu kenn defalul yëg nañ ci suñu xol loo xam ne sii duñ ko mës a yëg kon nag dañu ciy seey suux ci barke Seexul Xaadim am bëgguñu dara lépp lu ñu am rek def nañ ko ci bis bi lépp lu am rek def nañ ko ci bi waaw ndax sëñ bee ñu ko jaral lépp loo ci def it ko delloo si. ginnaaw nag boo xam ne mbooloo mépp dikk nañu muy membre yi góor ak jigéen. di ñi nga xamante ni ñooy mbokk yi xarit ak am di jàmm yi fekk na addi yi lenn lu ci nekk itam comité d'organisation bi nga xam ne direction générale yebaloon na leen waajal ko lu ci ne ñu teg ko fa mu war a nekk mu ne camion matt yi fi ñu war a gaare yenn camions yi sëf ay bagages yoo xam ne mënul dugg ci kër gi fi ñu war a gaare ak itam li nga xam ne mooy bagages yi nekk ci biir mbaar mi lépp nag ñu def ko di ndigandiku ki nga xam ne mooy euh, Serigne Cheikh Bassirou Mbacké yor kàddu xalif général des mourides sëriñ bi woolu ko ngir mu mën koo jottaliloo kàddu yi nga xam ne moom lay wax ak waa daara Hizbut Tarqiyyah waaw kon euh, tey jii euh, mobilisation la boo xamee ni Hizbut moo ko def euh, ci wàllu liggéey bi nga xamee ni ñu ngi koy def at mu jot nga xam ne suñu lépp gën liggéeyal Serigne Touba euh, suñu jongo ak suñu dal itam day dugg rek ci biir wàccaayu màggal gu mag gi loolu tax na ba buñ dikkee ba jub si màggal gi ci diirub mën a wax ne semaine jëwriñ daara ji woote ci mboolem daara Hizbut Tarqiyyah ngir ñu dajale suñu addiyee balaa ñoo dikk ci màggal gi ñu njëkk ñëw ak suñu addi joo xamante dañ koy ziare suñu sëriñ ndax loolu mooy suñu warugar loolu nag tax na ba mbooleem daara yi Hizbut yi ci biir réew mi ak bitim réew yi ñoom ñëpp daje nañ ba tax tey ji ñu ñëw fi moo tax mbooloo mi fi mu toll nii boo xoolee ñëpp ñëw nañ muy góor ñi mag ñi ndaw ñi soxna yi mag ñi ak ndaw ñi ñoom ñëpp ñëw nañ ci espace culturel yi ak itam mbokk taalibe yi nga xamante ni ñoo àndal liggéey bi. waaw loolu moom yoonu murit moom loolu la baaxoo ndax moom def loo mënul moom la ñu digg ak sëñ bi te moom la ñu seq ak sëñ bi euh, suñu dund nag suñu lépp dañ koo jëmee ci sëñ Touba suñu tey ak ëllëg liggéeyal sëriñ Touba suñ am am suñ alal suñ amuñu dara li am lépp suñ Tuubaa moo ko moom moo tax lu ñuy dajale ci moom day yomb loolu moo waral ba suñu woon tey tey tey nañ dajale nangam bu ñu jugee ndépp rek bu ñuy jug rek suñ Tuubaa duñu gàttandu jërëjëf mu sant la dëgg yàlla day ñëpp ñëpp membre Hizbut Tarqiyyah ak murid yëpp day bég nañ ci lii moom ndax euh, ñoom ñëpp daal ñoo ngi sant ndax ku ci nekk mébét yoo ci doon am gis nga ci lu kowe sa njort ñoo ngi ñaan daal li ñuy séddu fii su sëñ bi itam defal ñu lu kowe suñu njort ba ku ci nekk ci nun ñii li mbooloo mépp di def ëllëg nga mën koo def yow rek ci daraja sëñ Bamba amin sàmm ñu saxal ñu ci liggéey bi saxal ci sunu njoboot ba képp ku ñu xam itam jub gën a sax ci liggéey bi daal lu ñuy la ñu gis ci mbir mi jëwriñu daara ji sëriñ Atou Diagne ak lenn ci jëwriñ yi ànd ak moom ci liggéey bi ñoo ko gàttanu mu agsi yegg ci Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké nag àndaat ak moom jëm si ci baas bi nga xam ne fekk na waa daara jëpp toog di nekk diir boobu lépp nag mu ànd ak xasida yoo xamante ni nañu ko tàmbale woon ba ñu jógee ci daara bu Tarqiyyah ak yoon wépp bi ñu agsee fii njàng mi daa gën a ràññeeku mbooloo mépp nag di teewlu kuréelu daara bu Tarqiyyah ci ay daaj yoo xam ne yu cosaane la di daaj yoo xam ne lépp tàbbi na rek ci cant gi nga xamante ni ñi ngi koy sant di négandiku nag Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke xale général di Mourides ak si war a seet si liggéey bi ngeen noonu Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ginnaaw boo xamante ni nag euh, Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ibnu Serigne Abdou Khadir ñëw na mu àndaat ak moom ñu jiitle ak jëwriñu daare Hizbut Tarqiyyah Serigne Atou Diagne ak lenn ci jëwriñ yi ànd ak Serigne bi nag jëm si ci biir baas bi nga xam ne fekk nañu mbooloo mépp toog di nekk waaye itam nag teeroo Serigne bi njàngum xasaayit moo xam ne. njàng mu ràññeeku la di njàng moo xam ne nañ ko tàmbalee woon rek ba ñu jógee ci daara Hizbut Tarqiyyah noonu itam lañ ko defaate fii ci kanamam kuréelu daara Hizbut Tarqiyyah di ko yëkkati ci ay daaj yu cosaane yoo xam ne lépp day firndeel rek ak cant ci bis bu tedd bi nga xam ne tey jii ci lañ daje na ngir xolu murit rek boo xam ne dafa am lu kawe njortam yóbbaale ñu ñun ñëpp te xamuñu nu ñu lay sante Mbàkke waaye nag sañ nañoo yeesalaat fi sa kanam sunu pas-pas ndax xam nañ ne ba lislaam sosoo ba tey lépp lu jaasi mës a def ngànnaay def ko gis nañ ne ndam yi lu mu rëy rëy rëy ba ñu jàngalee jullit yi joxe seen bopp am kilifa gu mat kilifa topp ci ginnaawam lu ñu la digal nga def ko lu ñu la tere nga bàyyi ko bañ ko defee ci lañ am ndam loo xamante ne musul am ndam lu ni mel ci àdduna fatul màkkata ci la juddoo ndam lu mës a am ci la amee fàtte loolu nag bëgg a sa bopp wala bëgg a sam xel jafe-jafe bu mës a am moo ko indi nun nag fas nañ yéene mbooloo mii doon benn bopp topp ginnaaw Sëñ Aatu mii nga xamante ne yàlla suñu borom moo ko tànnal boppam ci suñu kanam waaye doonuñu mbooloo moo xam ne dañoo toog naan dañuy élection wala dañuy xool nan lañuy tànnee déedéet ki fi toogal sëñ Touba lu mu wax moom la ñuy def lu mu ñu digal moo nu gënal suñu xel moo nu gënal suñu xam-xam moo nu gënal suñu bëgg noo ngi feddaliwaat nag yees yeesalaat jaayante googu ni ko jullit ñi defee woon daal taata sajarat yi ca bayaatu ridwaan noo ngi ko yeesalaat fii ci yow di ñaan nag suñu borom jox la ndam yoo xamante ne ku mës a xëyal lislaam ndam ya mu am say ndam na ko ëpp ndax xam nañ ne sëñ tànk kanam rek la am amul tànk ginnaaw mbooloo ngi nii moo xam ne ay xale ngi fi ay mag a ngi fi ay jigéen a ngi fi góor a ngi fi waaye ñëpp benn baat rek la ñu jëwriñu daara yi itam ñu ngi fii ci ginnaaw ndax dañoo xajal eh, gan yi ñu àndal di kilifa ñu toog ci kanam waaye ñoom ñu ngi ci ginnaaw dugg ci biir mbooloo bi waaye kenn ku ci ne ci gox nga bàyyi ko ci réew mi yëpp ak ci bitim réew noo ngi yee salaat lépp nag mbàkke suñu jaayante ci yow di ñaan suñu borom may la wér may leen ndam yoo xam ne day dolli ko waat lépp lu mu taggee woon ñu baax ñi ci lislaam daa di wan ne hizatu kulli muslimin jamu tagge woon Seydina Omar gis nañ ko ci yow murit yëpp si nañ ci sa taxawaay kon yàlla na ko fi yàgg te wér ak sa njab ak sa mbo ak sa rakk yu tedd yii ak sa mbokk yu tedd yii ñoom ñëpp nii ñu àndeek ak yow rafet na nu itam fas nañ yéene ànd ak yow àndin woo xamante ne dina doon àndinu dongo ak sëriñam yoo xamante ne gëmewuñu la jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ci ndigalul Cheikh Sidi Muxtar. yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér ba taxawaayam ci lislaam ak sëriñ yoonu murit mu gën a yàgg lool ndax ni ko sëriñ Youssou Diop waxee léegi képp ku ñëw ci jëmmam rek sa yaakaar dana dolli ko da nga xam ne sëriñ Tuubaa ngi fi kon nag jullit yëpp ak taalibe yëpp war maase ci di ko ñaanal mu gën fa yàgg ndax ak yàggam fi kat sagu lislaam la waaye sagul yoonu murid la ndax jëmm la joo xam ne amul jënn yitte àdduna yitteem jëpp weesuut jaamu yàlla ak liggéeyal Sëriñ Tuubaa te ku gis jëmmam itam li alxuraan di wax siimaahum fi wujuuhim boo gisee jëmmam rek xam ko ci moom ku xamutoon dara ci jeexiti Sëriñ Tuubaa itam boo gisee jëmmam danga xam ne ku dëddu àdduna gi da nga xam ne ku àgg ci suñu borom a ngi loolu ngay xam ci kanam gi nag li ci biir moo ko gën a wóor kon yàlla fi yàgg lool te ànd ko wér ci barkeb Serigne Touba te lii ñu wax itam ci biir suñu xol la ñu ko tibbee mu yóbbante ma nag kàddu yi cant ak i ngërëm jëmee ko ci yenn waa daara bu Tarqiyyah ci njiital sëriñ aatu jàng ak mboolem waa daara ji yëpp sëriñ bee ngi leen sant bu baax te di leen gërëm. ci seen pëstéef ak seen taxawaay ndax xam na ne yéen kat li Sëriñ Tuubaa waxoon ci murid sadix ni war a mel wa maahu salabu lixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari wa tarku l ictiraadi mutlaqan walaw bi baatinin alayhi fi ma rawoo loolu seen digg ak sëriñ bi noon ngeen doxe moom mooy amuleenu bëgg amuleenu bañ waxtu ne ci ay ndigalam ci ngeen di wéy kon yàlla yàlla saxal leen ci ba ca di saatit wa ma kaana li muminin wala muminatin isaa qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum al xiyaratu min amrihim loolu itam sëriñ bi gis na ko ci seenu doxan seen digg moom kon yéen itam mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ni ko kilifaam yu jëkkee seere woon ci yéen kenn ku ci ne sant leen gërëm leen ngir seen taxawaay ci moom moom itam toog naa moom ñu ngi tey jii maa moom ak yàlla mu wax ma ne ñoom de ba ma fi toogee ba tey daal lim sax weeree ndax sëñ bi suñ borom da koo dimbale la sëriñ Touba daa daa wax ne ci sëriñ Saliou laa ko déggoon dafa waxoon ne yi tax àdduna lëj ak di nax du ma dal du ma dal mukk ndax du fàtte du ma jaawale du ma jaaxle loolu nag wàllu na ko moom mii léeg-léeg mu wax la yooyu sa jëm bopp loo xam ne li ngay néew néewi at doo ko mën a takk wala fàtte nga ko ndax keroog dama limal weer yi wax ma ne ba ma fi toogee ba tey nangami weer la de waaye boobu ba fii mu ne li ma gën a yéem ci ñoom de def lu baax sax yomb na waaye way gi moo ma gën a yéem ndax amul guddi amul bëccëg amul nawet amut naaj amul dara lii nga xam ne ñu ngi koy jëf ci sama digg ñoom muy adde yi na togg yi nga xam ne ci diiru at mépp dañ koy def di ko defal sëriñ bii loolu jëf bi yéeme la joo xam ne wane na ne sëriñ Tuubaa nangu na ko ndax bu ko nanguutoon loolu du mën a nekk kon yàlla ko yàggal bu baax a baax la ca desaat tam gis ngeen ko ci seen digg ak moom lépp lu ko ñor rek dana koy yëkkati dénk leen ko googu kóolit nag dara mënu caa dolli ko kon nag mi ngi leen di ñaanal ci barke Sëriñ Tuubaa yàlla Sëriñ Tuubaa sàmmal leen boppam bañ a dugal seytaane ci seen biir bañ a dugal bakkan ci seen biir ndax Tuubaa sax moom Sëriñ Tuubaa dindi na fi yàqu seytaane waaye yàqu bakkan tam yàlla ko dindi ci seen biir ba ni ngeen àndandoo nekk benn topp ci ginnaaw suñu aatum yi yéen ñëpp itam ngeen jiital ko te déggoo ci lu ngeen def loolu yombale liggéey bi te loolu kat Sëriñ Tuubaa moo ñaanoon suñu borom ne ko yaa rabbi ij'alil muridina maa fii xisnika alxasini wa chamlaj maa kon loolu képp koo xam ne yaa ngi jug di def loo xam ne day dajee taalibe Serigne Touba ndal wóor ne tàbbi nga ci biir ñaanuk Serigne Touba ñaanuk Serigne Touba nag ko ci tàbbi bay la sa yaakaar dëgër ndax liggéey Serigne Touba kat kenn defut ci àdduna ak àllaaxeer lu ko gën ndax moom sëriñ Bàkke bu sa daan wax ne yi ma umpale de ñaar bokk ji liggéeyal Serigne Touba ci saw ñaq dana joxe barke jox ko sa alal dala dolli wërsëg addiye ji di yëkkati di ko jox waxtu ne itam dégg ngeen Serigne Saliou li mu ci daa wax daa wax ne Serigne Touba na bokkoon na ci njariñu lu addiye bokk da caa bokk rek dana fekk fu dara nekkul mu def fa dara dana fekk fu dara nekk mu bari ko dana fekk fu lu bari nekk mu barkeel ko kon nag yàlla Serigne Touba gën a barkeel seen mbir ngeen yàgg fee ñëw te yàgg ko fekk moom mii itam. te li ngeen koy liggéeyal tam wóor la ne na ko yàlla na yàgg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon ñoo ngi sant rek addiye ji noo koy booleek euh, di ko xeeb lool ni nga xam ne noonu la sëñ Tuubaa mel ci diggante ak yonent bi rek sallallahu alayhi wa nga xam ne tagg na ko ba mu yàgg mu ne fa kay fa ahwi madhan li muhyi mu gàtt laa liggéeyal indi fi addiya te xeebuñu ko boole ko ay rangooñ xeebaat suñu bopp lool ak laxasaayuwaat kon loolu ñoo ngi koy seeree jur gaa ngi ci biti camion matt yaa ngi ci biti bagage yi am na loo xam ne mi ngi fii Mbàkke noo ko jubloo rek nun noo ngi nii say alal lañu noo ngi dem waaye ci addiya ji lañ bokk fu ñu jëm yoo lañ fa nekk moccaam indi ñaari walis ñu teg ko fii ubbi ko misaal mu xam yeneen walis yi nan la mel kàddu yooyu ci la Serigne Sidi Mokhtar Mbacke jox ndigal Serigne Cheikh Bassirou Mbacke ibnu Serigne Abdou Khader mu ànd ak jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah mu won ko bagage yi ak addiye yi nga xamante ne indi nañ ko lenn lu ci nekk mu won ko ci ay misaal tàmbalee nag ci addiye yi nga xamante ni jot naa nekk ci biir mbaar mi ba ci yi nga xam ne tey dafa nekk ci biti jotul mën a dugg moo xam jur gi la wala yenn camions yi sëf mat ak yeneen bagage yi nga xamante ni du mën a xaj ci biir ñu ànd lenn lu ci nekk itam mu gis ko nemmiku ko ak siwaat na ci biir leeral ko Cheikh Sidi Mokhtar mbooloo mépp ñaan yoo xamante ni képp koo gis mu ngi fas ci xol li mu gën a bëgg te am kóorute ci ne suñu borom dana ko dajaleek moom ci barkeb Seexul Xadiim di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñu yàgg ko fee fekk yàgg koo indil liggéey bii di ko ko seereel moom mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba di bisu mbégte nag boo xam ne foo ko takk rek weesu na ko ci mboolem dongo yi nga xam ne teewoon nañu waa daara Hizbut Tarqiyyah ak mboolem ñi nga xamante ni ay soppe lañu ak fu ñu mën a nekk ci senegal ak ci bitim réew te xam ne nii ñu ko doon gisee nii noonu la ko almuridiyya defee woon fu waay mën a nekk ci àddina bi jàkkaarloog moom di gis waxtu cant ak waxtu mbégte yi nga xam ne am nañ ko ci weer wu tedd di weer wu màgg woo xam ne weer wu itteel Serigne Touba di weeru safar di ñaanal Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké xalif général des murit mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñu yàgg ko indi liggéey bi mu yàgg ñu koo nangul mooy kàddu sant yi nga xam ne rek tey koo dajal ci dongo yi loolu rek bis la ci bisi sant yi nga xam ni bis bu réeré la ci Hizbut Tarqiyyah ndax bis bu taalibe di dajeek sëriñam yeesalaat ak njébbalam loolu bis bu réy la bu fekk ne nag Hizbut Tarqiyyah moom seen bis yëpp bisi sant la mu ñu sëñ Saliou waxee woon ni bis seen bis yëpp bisi siyaara la waaye nag lu mel nii day tax bu ñëwee dajalewaat nit ñi soññee bi ci nekk rek dafa dafa jar di ko def ndax tey fu ab murit taxaw ci dëkk bi e, toll na jamono joo xam ni xelam ak yéeneem yëpp mooy am jël am ñëw siyaare si sëñ bi loolu nag la ko jur ci moom la muy jur ci njariñ kenn xamut nu mu toll loolu moo tax e, mbooloo mi ñu koy dajale di ñëwandoo ci bis di ko di ko yëgle di ko ànd ak ñëpp e, muy animation bi loolu la muy jur mooy soññee ak kenn ku nekk yeesalaat ak ko fuñ romb rek kenn ku nekk dana yeesalaat njëbbalam te siyaare sëñ bi moom li ci sëñ bi wax yaakaar naa ni njëggal ak njariñ ak wax na ko ci bayit yu bari hmm? wa bi yahdillahu kulla man yasur wax na fu baree bari la mu wax ci sarsaara te sëñ Abdoulaye wax ni daraja da ko fekk foofa waaye feneen fu mu nekk ginnaaw bi ku ko fekk noonu la deme moo yaa jàpp ni nag tey jii la ndax sëñ bi bi mu liggéeyee ba noppi suñu borom ci fay gi da ko wax ni ko at mu dikkati dinaa la tegal lu toll la ma la tegaloon kon loolu buñ ko buñ ko buñ ko filee lu toll noonu ba tey jii dañuy jàpp ne dara ji jëm toll woon ci sarsaara lañ ca doon am ci sarsaara mënees naa am junneem tey jii loolu daara ji bu ñu ñëw lépp lu ñu dañ koy indaale noonu la a saraay def sëriñ bi loolu moom mooy teggini siyaar teggini siyaar moom ci tënk mooy taalibe bi day dajale lam am lépp bañ a bàyyi dara la am lépp mu tànn la ci gën hmm? defar ko ba mu jekk defar boppam ba mu jekk mu ànd ak teggin ya ak ak matale ga ñëw siyaare si sëriñ bi bu ñëwee niñ koy defee nii tànku nen boppu neen toog ci suuf déglu ndigal ba waxtu wuñ la yeewee nga dem te sëñ bi wax na ni fa nasratul hubbi min a shaykhi ila muridihi hiyal masaya wal wala sëñ bi xool la rek benn bis xolam sedd ci yow mbégte moom muy am ci yow mooy defar sa mbir àdduna ak àllaaxira ñoo ngi am mbégte bu baax ci fekkee bis bu tedd bii tey muy bisu siyaar boo xam ne doon siyaar Cheikh Sidi Moukhtar di ñaanal Cheikh Sidi Moukhtar yàlla yàggal ko fi yàlla may ko wér ba li mu yéene liggéey Sëriñ Tuubaa lépp mu liggéey ko te ànd ko ak yéen ànd ko ak taalibe yi yëpp itam ndax siggal na lislaam ji yëpp siggal na yoon murid yëpp waaye yéen tamit siggal ngeen ko ndax bis bii tey bis la boo xam ne at mu jot di ko tànk gannaaw tànk kanam rek la am saa bu ñëwee lu ngeen defoon ñëpp gis ni def ngeen lu ko kon nag siyaar bi ñu leen di siyaar ñu di ko jaar li sëñ aatu di ko di ko jébbal mboolem Hizbut Tarqiyyah di leen jébbal ay cat di leen jébbal ay ñaan di leen jébbal ngërëm sëñ aadum mi leen boole yilif sax bu soxla woon ci ci yow lay jaar loolu organisation la boo xam ne kenn ku nekk war na cee yi li nga xam ni seq ngeen ko ak sëñ bi itam di ko def moo xam lu mu leen sant la moo xam lu ngeen toggal seen bopp la lu ci sëñ bi bu ngeen dellu ginnaaw ko def di ko yokk lu leen sëñ bi sant itam bu waxtu ba jotatee du ngeen tàggoo da ngeen dem def ko nam leen santoon bu dee benn ngeen def ca ñaaram kon nag membre yi nga xam dañoo nekk ci seen gannaaw yëpp ñoo ngi leen di soññ te leen xam ne liggéeyub sëñ Tuubaa moom kanam lay jëm waxtu wu ne ndax sëñ Tuubaa li fi baax lépp yàlla suñu borom jox na ko ko ba noppi bu waaye nag yàlla du wàcc di di tibb fu ne mu di fa yóbbu dafa am ñu mu koy jaarale kon liggéeyub sëñ tubaay koo xam ne toggoo nga ci dara ba sëñ Tuubaa xam ko adduna sépp xam ko nga jëf ko ñu gis nga dox ko doy lu sëkk sa kon ñoo ngi leen di sant bu baax ngeen ko fekk sëriñ bi ànd ak moom liggéeyu liggéeyu sëriñ Tuubaa bi asalaamaaleykum wa rahmatulah télévision Al Mouridiyyah jëlale woon ca guy mbind di ziyaare boo xam ne daara isbu tarxiya moo ko doon def moo fi nekk di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak mu amoon fukki fan ak ñeent ci weeru safar atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-benn ci ati gàddaay gi dëppook 7 décembre 2014 di bis bu ràññeeku nag boo xam ne kenn dootu ko fàtte mbégte lépp loo mu kawe suñu njort defal nañu ko it mu kawe lool fi nga xam ne fa lañ ko yaakaaroon mu jur nag ak cant ak pëstéef ak laxasuwaat fas yéene at mu nekk fu ñu nekk ren ñu weesu ko te xam ne Sëriñ Tuubaa wax na ni képp ku koy liggéeyal suñu borom dina faj sa ajo tey ak ëllëg képp ku koy liggéeyal suñu borom dana la defal loo bëgg loo yóotu nga jot ko te lépp ànd ak cant ak mucc ak jàmm ak xéewal muy bisub cant boo xam ne nag daal Hizbut Tarqiyyah direction générale mboolem membre yi ak mboolem xarit yi ak mboolem am Yeah.